bàyyi politique dafa fekk rek ne euh, banque bi dafay jël sama temps yëpp te muy lu jaadu parce que c'est une banque publique c'est une banque nationale vraiment ma war si farlu liggéey si liggéey bu ci ayib pour l'intérêt du Sénégal waaye maa ngi sur le terrain politique euh, maa ngi si xam ngeen sama njaboot ñi ngi fi euh, bu ma si je ne suis pas présent aussi gis ngeen sama wet xale yee ngi fi Adja Seyna boo ngi fi maire Khady Dramé ñëpp a ngi taxaw sama ginnaaw ñi ngi liggéey liggéey bu ci ayib ñoom tam sur le terrain tey nag li taxoon ma ñëw muy la politique de développement bi nga xam ne moom laa gëm mu amoon une formation de 15 jours parrainée par 3FPT ñu si profité di gërëm 3FPT bu baax a baax Adja Sufi Diallo si liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko dama waroon tàmbal sa gërëm la président Macky Sall parce que li yëpp moom la c'est sa politique qui est mise en branle et je disais tout à l'heure que malheureusement malheureusement la communication du jàll am na ñoo xam ne sax Sénégal xamuñ ne 3FPT am na mais tay li gis une formation qui s'est déroulée pendant 15 jours euh, moi, am 3FPT dirige avec euh, un cabinet MSI euh, la formatrice FAMASAR, Nous formons la famille aux fruits et légumes me gis les résultats concrètement Lima me tek vraiment la question qui se pose Si nous faire formation et après qu'est-ce qui doit s'en suivre financement yi dafa war a topp ci loolu nañu financement mais aussi am incubateur au niveau de la Médina nous xam ne dina mën former à l'organisation d'entreprise Nous euh, former une en entreprise liggéey xam nañuy gérer entreprise c'est important maintenant aussi organiser le marché nee naa Médina nit ñi am am c'est un grand marché Euh, booy jaay produit 1000 euh, francs boo ko jaay jaayee midnight xëy na li ngay am par mois dina nekk chiffre d'affaires bu am solo donc on va réorganiser la marché bi ñuy def suñu programme pour le municipales am na loo xam ne junjoon nañ ko. bindon nañ ko ci programme mais defe naa loolu aussi lool lu am solo dinañ ci continuer liggéey avec les autorités essayer comme remettre en branle pour nit ñi ak gis seen njëriñ ñu liggéey suñu Médina dafa naa loolu moo am solo loolu moo taxoon ñëw fi tay ñu ci dem euh dinañ ci bay suñu war bu baax ñun au niveau de la Médina euh man sama xel dal na parce que sama xalé yi ak sama jigéen ñi ñi déjà sur le terrain di liggéey gis na aussi euh, ñi nga xam ñoo bok suñu benn bok yaakaar moy le maire ak ñoom Seydou ñoom ñëpp ñi ngi liggéey ñi ngi leen encourager mais ñun aussi nañ si bay suñu waar bu baax a baax defe naa génnee li nga xam ne am nañ ko biir Médina jébbal ko euh, président Macky Sall mu jàllale ko si Amadou Ba defe naa loolu dinañ ko def mais jàppale ni aussi c'est une élection nationale c'est une élection qui se joue à l'échelle nationale donc ñun dootuñu yam biir Médina il faut ñu génn te yàlla dogal na ñun yàlla daf ñu meen ay bànqaas yoo xam ni génn nañu biir Medina fu nekk am nañ fa ay représentant ñu ngi leen di dajale fi mu nekk nii te si fan yu néew di ngeen gis nii li ñuy wax nii lu dëgg la dinañ def ay manifestation yoo xam du nekk biir Medina la nekk feneen du caag ni damay bàyyi Medina waaye jàpp naa ni am na ay xale yoo xam ne màgg nañu léegi am nañu ay jigéen ñoo xam ne ay kilifa lañu ñoo xam ne mën nañ koy gérer ñun ñu essayé yokk tuuti au niveau départemental au niveau régional et au niveau national defe loolu aussi lu mat a préciser la incha allah si fan yu néew di gis loolu jërë ngeen jëf.